وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين رب الصدور واشرحي لنا القلوب وافتحي شؤوننا وأصله رب بالنون والقلم إخوة الإيمان في كل مكان نقول لكم asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw bi ñu sante yàlla bàkk ko jullit yonentam bi kañ ko ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara si ni mu gën a tedde fa tabaarakallahu comme ni ngeen ko baaxee di ko ànd ak seen xarit seen wërëre al imaam Mamadou Ndoye ci sunu diine di ak fàttalinte euh, di ak defaralante suñuy diggante ak defalalante suñu diggante ak suñu borom fa tabarakallahu comme ni ñu ko xamee émission diine muy suñu diine bi ñu ko tàmbalee ba ba léegi di ko def ñu ngi wax ci suñu walu pas-pas ndax dafa am solo dañuy wax ne ki di ñaw yor pusom di ñaw cat la bu ko pasul rek bu xëccee la mu ñëwoon yépp day mujjee nek zéro motax pas-pas bobu, yalla bëgg nit ki am ko yonent bi bëgg nit ko sellal ko ci la neewoon di waxtaan ak yéen ñi nga xam ne yenn a safoo Dialaw TV di leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen jaajëfal ci déglu bi ak teewli bi ñaan yëg nañ ko yàlla na yàlla nangu ñëpp gannaaw nuyoo yi nag du ñàkk ñu am ku ñu nuyu di boroom xam-xam Sénégal ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Wade bu. mbuur warang def tafsirul quran ci jumaa sëriñ Babacar Sy ah, xam ne ne li nekk ci ñun la ci ëpp yëpp moo ko ci def ñu ngi koy nuyu ak njabootam ak waa daara ja li ko waral itam mooy suñu jëmm ju xeebu ji suñu euh, àlluwawu gàtt wi saa su ne mu ngi encouragé suñuy waxtaan di ko jël di ko déglu rax ci dool di ko partager ci Facebook bi ah te muy boroom xam-xam loolu nag taxawaay boobu bu ko amee ci njabootam dañuy kontaan si moom di ko ñaanal wér ak wérle comme ni ñu ko waxee woon ñu ngi woon ak yéen ci al imaanu muy gëm tey lislaam dafa séddale ko ci ñett am na lu ñuy wax imaan am lu ñuy wax islaam am li ñuy wax ihsaan ndax yonent bi moo ñu ko jàngal waaye buñ ci yeggee ci faram fàcce ga dinañ ko leeral imaan islaam ihsaan waaye tey fi ñuy waxtaan ci imaan waxoon nañ leen mooy lan waaye ndeke imaanu gëm dafa am ay ponk imaan dafa am juróom benni ponk buñ ne gëm loo gëm ñu ne ponk bi ci jëkk li ngay gëm mooy yàlla al imaanu billaahi wa malaikatihi ay malaaka wa kutubihi ak téeréem wa rusulihi ak yonentaam wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba wal qadari ak dogal ya lu jiitu loolu wa kutubihi ak téeram al imaanu billah wa malaayikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxiri bés bu mujj ba waaw wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba wal qadari dogal ya ya ca neex ak ya ca naxari léegi ci biir juróom benn yooyu biñ ci bëgg jël tey mooy al imaanu billahi ndax ki ne mukallaf nga kiñ ne yow ab jullit nga kon liy jiitu ci yow mooy nga xam lan mooy àq yàlla ndax yàlla dafa am lu war ci moom am lu jomm ci moom am loo xam ne dagan na ci moom kon nag al imaanu billah bu duggee kon yow mi gëm am pas-pas ci yàlla mi nga gëm war nga xam ne du lépp lu jog ñu askane la ko yàlla déedéet kon ci gëm yàlla googu lañu bëgg a waxtaan ak yow ana lan moo war ci jëmmi yàlla ak lan moo warul ci jëmmam ak li dagan ci moom muy alwaajibaat ak almustaxil ak jawaaz kon tey nag waa ji waajibaat yi rek lañ bëgg ànd ak yenn nafar ko ci fàttalinte ñuy sawar chaque jours di am jotu déglu suñu mbiri diine ñu bañ ko ignorer ndax yow mi ndaw di suivre YouTube bi bul fàtte mukk sa mbiru diine ndax tey nga koy déglu ci bi nga nekkee ndaw waaye boo nekkee mag la lay jariñ te yàlla bëgg na lool ndaw lu koy jaamu kon nag jël sa kaye ci mboole foo dégg diine ñu koy waxtaan di note dina la dimbali ndax am na loo xam ne ci sa ndaw rek nga ko mën a xame bu la rëccee bu fekkee itam am na looy jommale sa bopp doo ko xam ndax dangay ngay rusalaat kon ngelawaay ñuy bañee caaxaane suñu mbiri diine di ko déglu ndax ëllëg dinga ko soxlaa gis naa ba tàyyi de jigéen goo xam ne ndaw la woon gëstuwul mbir jàppam gëstuwul mbiri sangu setam waaye gis nga de keroog bi jëkkëram génne àddina seen ko doon jàngalee nan lay sangoo set mbaa nan lay jàppee am na ko doon dem màkk jigéen la itam noonu la demee ba muy dem màkk si lay door di jàng yooyu te loolu buñ ko yëgee rek gàcce lay doon kon dañ naan waaw kii ni mu doon dundee ci néegu sëyam kon yooyu nag il faut ñu koy bàyyi xel ci muy góor ak jigéen kon nag dafa am melokaan yoo xam ne dafa war yoo xam ne dañ ko war a askane yàlla ndax yàlla lépp lu mat rek moom la lépp lu manqué rekk sori na ko moom yàlla yooyu war ci jëmmi yàlla ak i melokaanam ak i jëfam ñaar fukki melokaan la boroom xam-xam yi cité ne yii war na bi ci jëkk mooy al wujudu mooy l'existence de Dieu nga xam ne yàlla lu am la yàlla lu nekk la waaye yàlla bu amee nan la ñuy xamee ne am na loolu yomb na micro bi ñuy waxee caméra bi ñuy jël am na ku ko créé kon nag caméra bu ñu ko xoolee ñu ne lii caméra la lii micro la am na ku defar loolu ñu ne kooku mooy nit kon moom itam nit bu ñu ko xoolee muy dox ah, di jëf dañ naan am na ku ko créer kon kooku mooy yàlla kon yàlla lu existé la boo xoolee asamaan xam nañ ne ñun ñëpp du bàyyi kenn ku ko fi def suuf it noonu ndoxu géej mi noonu comme que yàlla nag nee na comme que maa bind asamaan bind suuf kon est-ce que ay doute dina ko jaar te di wax ndax yàlla am na wala amul. kon dañ ne ko at déedéet moo tax yàlla wax ci suuratul am ne afillaahi shakkun faatiri samawaati wal ardi waa est-ce que eh, ndax yàlla ji tey man est-ce que jar na ngeen di am ay jixi jaax naan yàlla am na wala amul te man maa yee asamaan yee suuf kenn jàppalewu ma ca kenn fekkuma ca ah kon nag yàlla moomu yi mu bind day wane ne kat ah kon yàlla lu existe la ndax nu ñëpp xëyuñu rek gis portable suñuy loxo xëyuñu rek gis caméra di ko téye ndax dafa am ko créé kooku mooy nit nit moomu nag ki ko créé ak leneen lu am ak suuf ak asamaan kooku mooy yàlla suñu boroom tabaaraka wa kon nag lii jëkk war ci mukallaf bi mu xam ko mooy yàlla lu am la alwujudu ñaareel bi mooy alqidamu kii gëm yàlla dafa war a jàpp xam ne yàllaa fi jiitu dara jiituwu ku fi te jiitoom gi kenn xamul kañ la nit kay mooy juddu ñu defal ko date de lieu de naissance mu gaañu mu gaañu génn àddina ñu defal ko date de mais yàlla moom moo fi njëkk mais jiitoom gi kenn dul wax fii la tàmbalee kon alqidamu kon nag boo déggatee ne yàlla am na ku ko jiitu kon nag dañ naan loolu munta ne ndax yàlla mooy alqidamu ndax yàlla moom ci boppam moo wax huwa al awalu wal axiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورة الحديد يالا هو الأول من ما يجك والآخر ما في مج والظاهر ما فين والباطن ما نب وهو بكل شيء عليم تمن يالا لب لخم kon yàllaa fi jiitu waaye jiitoom yi kenn xamul kañ la ñetteelu point bi muy albaqaa di fi des kon kii gëm yàlla dafa war a gëm ne bu fi ñëpp jógee yàlla rekk a dafiy des kon biñ jëlee baqaa muy tàmbaliwaay te kenn xamul fan la baqaaw di firi des yàlla fii sax te kenn du xam kañ la fi jóge kon albaqaa يلا ما في دس يلا ن كل من عليها فان ويبقى وجه رب بك ذو الجلال والإكرام لب اللي في نك دينا راف كيف كو في نك دن في جوجي مدس دون سجمو بروم كون يلا li ñuy pass ci moom mooy moom du fi jóge yàlla waaw du fi jóge dafay sax kañ la fi jóge xamuñu ko kon mënoo xam kañ la fi newoon mënoo xam kañ la fi jóge yàllaa fi jiitu moo fi mujje quatrième bi mooy almuxaalafatu lil xawaadis kii na gëm na yàlla li muy pas mooy yàlla dafa uteg li sosu yàlla moo créé mais li mu créé yépp wute nag lenn nuru ko ca lenn doxul ak nuróowul ak moom المخالفة للحوادث نحي على موني جسد الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يالا دي أمول ملي موم ليس كمثله شيء در نورو لك موم وهو السميع البصير كل لن يدور عليه أمول لو ملي أمول موم دالنا موم مل مل نكو موم يالا te dafa uteeg lépp luy nit ñi dafa uteeg ñoom loolu ngay gëm ndax <laughs> moom moo bind kenn bindu ko amul ndey amul baay amul doom kon yooyu ni ñuy créé ñooy am yooyu dañuy lekk di naan moom du lekk di naan du nelaw dañuy nelaw du gëm di yooyu et cetera jeex du du jeex bari na kon yàlla dafa uteeg nit ñi juróomeel bi. mooy mukallaf bi li mu war a xam pas ko ci moom mooy qiyaamuhu taala bi nafsihi ne yàlla moo taxawu boppam kenn taxawu ko ku dul yàlla dañu la taxawu ku dul yàlla dañu la soutenir waaw waaw dangay dañ la jàppale ba nga taxaw yow ngay jàppale ba nit taxaw bu la neexee nag nga tàpp dënd ba pare na kenn jàppale man rek la yàlla rek la kenn jàppalewul moom yàlla moom mi nga xam ne moo taxawu boppam nit ku nekk bi nga juddoo nekk lii dañ la taxaw dañ la rawale génn taxawuloo nàmpal la nga jàng-jangi ànd ñuy dimbali la dugal la école jàppale la nga jàng ba man gis nga loo am kantan loo am am doole boo demee ba nekkaat mag puus-puus lañ lay teg dañ lay jàppoo di la teg kon yàlla bu ñu waxee almuxaalafat lil xawaaris ute nag ñun ute nag dara te kenn xamul moom lu mu doon waye nak mom mo taxaw bopam mom yàlla te lépp lu taxaw moko taxawal motax yàlla ne yaa ayuha nas antumul alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu hamid yen nit ñi la wax yen ñep yena soxla jëm ci man waye nak wallahu huwa alganiyu alxamid man soxla luma ken man yàlla soxlaawuma daray kenn ci yeen waaye yeen yeen ay soxlaa ci man kon loolu mooy kii taxawu boppam faqir nag ñaar la dina ayuhan nas yeen nit ñi antumul fuqara yeen ñépp da ngeen aajowoo ila allah jëm ci yàlla ay faqir ngeen mooy ñu amul dara ngeen faqir nag ñaar la ki ñàkk alal ak ki ñàkk yàlla man nga am alal ju ne gàññ te amoo yàlla mën nga am yàlla te fekk amoo alalu àdduna waaye ku am yàlla ñàkkoo dara moo tax mag ñi ñoom ñëpp faqiir la ñuy doon ki aajowoo jëm ci seen boroom moo tax alqiyaamu bi nafsihi qiyaamu taala bi nafsi juróom bi mooy nit ki dafa war a gëm ci ne yàlla kenn taxawu ko moo taxawu boppam te lepp lu taxaw mom borom bi subhanahu wa taala mom moko taxawal ñu tek ci al wahdaniya wahdaniya moy wiitug yalla moy kennuk yalla yalla kenn la du diviser wu dedet ben yalla mo am keneen ku fi ut lanen nan moy yalla ya ko créer waaw créé nañu ay xeer ne yalla la ñi ay garab ñi jant bi et cetera et cetera lu bari waye itam yalla mom kenn la amna ñoo ne bakkan lañ def seen yalla waye itam bu la dem rek nga weddi ne bakkan bi du yalla kon al wahdaniya moy mukallaf bi ki gam yalla de gam ne yalla kenn la yalla kenn la du ñaar du ñett du ñeent moom kenn la leneen loo ut ya ut ay tappale tuddee ko yàlla waaye du yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu dajalee waa màkk ñu nekk melal ñu sa borom daf leen waa qul huwa allahu ahad waa màkk nekk yow da fontu ñun am nañ cent soixante yàlla ba léegi ñu ngay tawat suñuy aya fajoogul nga bëgg ñoo andil benn yàlla mu ne ko moo am moom kenn la lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu an ahad moo tax moom fa tabarakallahu amul opposant ndax ku opposé wu rek coow lay jur waaw boo xoolee coow la ca Guinée ah opposant yeeg ñi newoon ci boppu réew ma la xaccoo ku war a kon yàlla yi bu ne woon ñaar mbaa ñett kon léeg-léeg kenn day opposé wu ne maay te bu ko defee nit ñi rek ñoo ci alku moo tax yàlla ne ah, ca suratul anbiyaa law kaana fihima alihatun ila la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun man kenn laa man yàlla mu ne law kaana bu yelloon nekk bu newoon fiihima ci asamaan ak suuf alihatun yàlla yeneen ilallaahu ku dul yàlla la fasadata kon suuf ak asamaan dina yàqu beneen buur bu amoon ñaari buur am ñu nekk di diriger asamaan ak suuf day yàqu ndaki mu ne day taw tey kii nekk do ko fi tawé ki du taw ki lay taw ci minde fi lay metti mo day yàlla amul opposant walam yakun lahu kufu an ahad law kaana fihima alihatun illallah bu fekkoon ne beneen yàlla da fi nek ku dul yàlla la fasadata sufsi asaman si dina yakh fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun kon yàlla jomale na bopam lolou yàlla sell na mu ñuy am ñaar yàlla mu waxaat beneen sa sa beneen saar bu suratul baqara ne wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanu rahim wa ilahukum seen buur yàlla ilahun wahidun benn buur la ilaha illa huwa arrahmanu rahim amul benn buur ku dul moom benn buur rek la moom la boo tudda rahman tudda rahim moo am yërmande ci mboole mbindeef fi waaye ëllëg tam yërmande moo koy jagleel ñi ko gëm kon da ngay gëm ne yàlla kenn la يالا ديفيزي وول بيتي توب موي القدرة العامة يالا كوي دوغل لا كو أم كانتان لا واو يالا دوغل مودا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو موم يالا على كل شيء قدير سي بيب مير لا انتال ليب موم يالا موكاي دوغل كون نك جوليت بي مكلف بي dafa war a gëm ne yàlla mooy dogal du keneen kon loolu boo ne gëm naa yàlla loolu dafa war a am mooy juróom-ñaareel bi al iradatul amma mooy namm-namm ndax nit dina namm yàlla namm waaye bu yàlla nammee nit namm ah ñaanal rekk <laughs> sa namm-namm tolloog namm-namm yàlla bu dul lool ni nga muñ ndax jaam bi buy namm namm yàlla di nammi nam sa namm namm jooju pour mu nammi nammi il faut rek day namm namm noo namm namm yàlla waaw bu ko kon du mën a nammi nammi kon ñu ñaan yàlla suñu namm namm yàlla nay namm namm noo namm namm yàlla ndax mu nammi nammi al iradatul am قال الله تعالى يلا ne innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid fa'alun xoolal fa'alun lima yurid yàlla lu mu bëgg a def rek da koy def fa'alun defaakoon la lima yurid ci li mu nam waaw ndax mu am sañ-sañ boobu ci suratul buruj la wax loolu waxaat na feneen ci suratul qasas ne وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك صبر امسا يخلق دينا بند موم ما يشاء لك نيه لم بند نك ويختار موم نام نام مو تان سي اي يوننت تان سي اي ولي تان سي جوخ لين اي ميسيون لولو يالا لا سوب مو 8 بي 9 بي نك موي العلم يالا خمنا لب دا رنبوك موم يالا ndax adina gi ni mu tëdde ak suuf ak nit ni mu ko binde lolu xam-xam rek ko man al ilm mom nak xamna li xew motam ne yaalamu mom yàlla nee na yaalamu maa fi samawati wal ardi wa yaalamu ma tusirruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bi zaati sudur surtout tarabun yàlla nee na li nek ci asaman lépp ci liitari ndox ci ay malaaka ci ay néer moom xam na ko wal ardi suuf nee na suuf doj wi gën a féete suuf sax xam na ko pepp ya moo ko xam ndox ya nekk suuf moo ko xam tey sax lañ bi nga xam ne moo nekk ci guddiku ñuul si doj wu ñuul nekk lu ñuul yàlla sax xam na nam fa demee mu ngay gis nam fa demee alxayaa muy fukkeel bi mooy yàlla kuy dund la ndax yàlla moo ne allahu la ilaha illa huwa alxayul qayum yàlla mooy dund di dundale lépp lu dund rek moo la dundal te dund ak yàlla gi moom kenn xamul fan la yam moo fekkee lépp moom yàlla kon danga koy fas fukkeel beeg benn fukk ak ñaar mooy yàlla dina dégg yàlla dina gis as sam wal basar mais dégg yàlla day uteeg suñu dégg gisam day uteeg suñu gis ndax dañuy judd di xaw a mën a gis dama dem ba suñu gis leer dama dem dootul leer jël ay verre mi yóbbu dikkal ñu ba duñ gisati léeg nga juddu di dégg ndànk-ndànk di xam dama dem ba sa dégg-dégg neexatul yàlla nag loolu du ko dal ndax moom léeg-léeg ngay déglu mbir nga teg ci sa nopp bu baax pour dégg-dégg nag déedéet gu kawe kàddu gu suufee ni mu koy dégg la koy déggee ñun ñoo xam ay kàddu yu suufeek yu kawe léeg nga bëgg a jël sa portable di déglu def ni doo dégg dara léeg mu foor nga teg ne la yàlla nag dégg-dégg benn la gisam itam noonu. yene bëgg gis wër di jël ay longor di xol di xol ci internet bi xol ndax wër fi ñak et cetera dina dégg dina gis waaye nak sunu gisin ak suñu dégg day wuté moo tax ne qala la takhafa innani maakuma asmau wa ara bu len ragal dara bumi wax ak musa lu mu wax moy asmau ma ngi dégg wa ara kon yalla day gis fukkeel beeg ñetteel bi muy alkalaamu yàlla day wax mais waxam ute nag sunu wax ba buy wax ak yow sax sa yaram wi lépp boo koy yàlla nag nee na Muusa wa wa kallamallahu Muusa taklima yàlla moo ne man wax na mag Muusa ya yi ci topp qaadirun yàlla koy dogal la muridun aji namm la aalimun ku xam la xayyun kuy dund samiun kuy dégg la basirun kuy gis la mutakallimun aji wax la kon yii ma la wax ñaar fukk yi sa dëgg-dëgg-dëgg dafa war ci yàlla loolu moo war ci moom te dëgg-dëgg nag li mooy ak mat ni ma la ko waxee mu war ci moom yii dafa aju ci jëmmam moom yàlla yii aju ci ay melokaanam moom yàlla yii aju ci ay jëfam waaw yooyu noonu la deme ndax yooyu ma la jëkk a wax ci yàlla am nag day aju ci jëmmam ci zaatam jiitu gaag des gaag taxaw boppam ak wéet gi mu wéet nekk kenn loolu jëmmam la ay waaye nag ay qudratu nammam iraadaam am yooyu day aju ci sifaam waaye jëf gi muy jëf waaw yooyu itam day aju ci jëfam kon yooyu melokaan ñitte yooyu la amee kon fa tabaarakallaahu ah loolu lañ andi woon pour ñu nafar ko ñu xam ne bu ñu déggee li yàlla du moroom wala moom boroom la yal yàlla may dégg ak topp di ziar ñëpp di jaajëfal sama technicien yi tabaarakallaahu bàyyi góora ah bàyyi sulay di leen ziara bu baax di leen jox dig daje ci beneen numéro di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu